Maître Massokhna Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi di fay. yow euh, avocat nga yow tamit yaay jiite SOS euh, consommateur kuréel googu nga xam ni dafay taxawu ak ak yelleefu way jëfandiku yi alors préfet bu Ndakaaru euh, daal dinay ay samedi bi ñu weesu lii di manifestation bi nga xam ni yéen waa SOS consommateur ànd ak wayjuru ndongo yi école yenn yi di fayeeku ñetti weer yi nga xam ni jàngoñu ko te nu jàpp ne waruñu koo fay yéen nag ngeen fës loolu ci boobule xeex déjà ñu buggoon xam fan ngeen ci toll ak jàngat bi ngeen def. ci aaye gi ñeel manifestation bi ngeen bëggoon amal. waaw jërëjëf euh, fës nañ ci xeex bi wante euh, euh, wéetuñu ci parce que ñi ci bokk bare nañu mm. actuellement boo seetee plateforme kii bi ñi nga xam ñoo bokk ci défense su élèves yi ak parents d'élèves yi association de parents d'élèves yi ñu ngi ci évidemment ensuite il y a les organisations de défense des consommateurs il les organisations la société civile, il y a les syndicats d'enseignants et il y a les hommes politiques de tous bords. Nous avons invité tout le monde. Et il beaucoup de personnalités qui avaient déjà donné aval. Euh, ñu joxe woon seen seen kàddu ni dinañ bokk ci ci ci manifestation bi manifestation bi nag du woon marche euh, rassemblement la woon rassemblement bu mag euh, ci Euh, deux vois yi ci li ñuy wax euh, rond point euh, JVC fii ci ñaari voies Liberté 6 yi préfet nag dafa ñu toog ba booba presque six heures jot na ñuy soog a notifié ni ñoom lankal nañu tere nañu manifestation boobu te fi ñu ko wekk mooy dañu ni dañuy ragal dañuy ragal Covid 19 bi law waaw ñoom dañuy ragal Covid 19 bi law moo tax ñu tere rassemblement bi ñu bëggoon def te ñoom rassemblement boobu. Euh, non seulement amul benn text bu ko tere actuellement parce que ñi nga xam ne ñoom la ñuy tere rassemblement yooyu bokk ci ñaareel bi ñoom seen bokk bopp ñi nga xam ñoo jiite réew mi ñu ngi bokk ci rassemblement yu mel noonu actuellement rassemblement yooyu mi ngi am ci transport en yi mi ngi am ci mosquée yi mi ngi am fépp lu tax ñu ne dañuy tere suñu rassemblement euh, te parce que simplement dañu gis ni euh, Sénégal ñi fi représenté euh, kuréel gu nekk ñu ngi bokk ci rassemblement boobu et que li revendiqué ñoom xam nañ ni euh, lu jaaduwul lañuy lañuy la ñuy xeex parce que di fayeeku nit ñetti weer yoo xam wóor na wóor yàlla ni ameelu la ko autorité itam mu wóor leen ni amee amewuñ ko parce que reconnaître nañu que ni parent parents d'élèves amee amewuñ ko lu tax ñu di ko seetaan ba léegi lan la ñuy ragal ba tax ñuy seetaan pour régler problème boobu xam ne ñoom rek ñoo ko war a régler ñoo ko mën a régler jël benn décision boo xam ñëpp koy appliquer xam ni dañ koy joxe mu circulaire te loolu lañ laaj ministre bi ça fait deux mois biñ ko ko laaj dès l'instant où moom d'accord na ni ñii waruñu fay bu fekkee jàngale wuñu et que ñi fayoon dañ leen a war a defal avoir maanaam euh, bu ñu leen remboursé wul it dañ leen war a defal avoir maanaam ñu mel ni crédit lañ fa am loolu bu fekkee ministre bi d'accord nañ ci ba pare te ñu jël benn euh, décision boo xam benn dogal boo xam ne bi euh, dañuy wax ni ñii waruñu fayeeku loolu bu fekkee amul c'est que état bi deful devoir am donc manifestation bi ñuy def pour dénoncer d'abord jubadi googu ŋàññi di googu xam ne moom la école privée yi def fépp au Sénégal parce que du Dakar rek ci région yi aussi forcer parents d'élèves pour ñu fay par force te ni leen di forcer dañu commencer di woo élèves yi di woo seeni parents kenn par kenn di leen wax ñëw leen fay ñetti weer yële xam ne kenn jàngale wu ko loolu doyu leen ñuy dàq ay élèves jóge ci loolu ñuy bloquer seeni seeni convocation ci bac wala BFM ñu jóge ci loolu. ñuy ñuy retenir seen i note seen i de note ñu ne duñu leen ko jox te kooku ministre bi ci boppam sax wax na ni élèves ko moom ñoom amuñu droit retenir mais ñu ngi ko doon def li ñu mujjee mooy euh, ku ku fayul ñetti weer yooyu duñu duñu réinscrire sa doom loolu juba di mënu ko def nañ sax ba am na école bu mag bu nekk fii boo xam ne bii Euh, bu ñu defoon manifestation bi parents d'élèves yi danañ ñëw wax li leen def parce que dañ leen ni dem ca kees ga ba ñu ñëwee di seen doom dañ leen ni dem leen ca kees ga fay ñu dem fay ba pare dellu si ñu leen place amul xam nga loolu njubal ak mënu ko paase te juba di mënu ko paase te préfet wu école bu mag moo ko fi def parents d'élèves yu bari ñëw di inscrire ñu leen dem leen fay ca kees ga avant ngeen di réinscrire ñu leen fay ca kees ga ñëw ñun leen place amul donc dañ leen di wax dem leen fay ci kees gi xamoon nañ ni place amul jubadi mënul passé loolu donc loolu état moo ko mën a faj justice mënu ko faj te état réew mu mag la kër gu mag la rek borom kër gi dafa war a am baat ci këram borom kër gi bu fekkee dafa am litige ay ñaari doomam di jàppante waru leen wax dem leen tribunal mu àtte leen waru leen wax dem leen waxtaan pour trouver solution daf leen a war a woo taaj leen ki ci newul ci dëgg mu ne mu ne ko newuloo ci dëgg loolu la ñuy xaar ci état du Sénégal looloo tax ñu bëggoon def rassemblement boobu mais comme préfet tere na ko te fi ko wekk ñun gëm nañ ni dana ñu attaquer décision boobu ci kanamu cour suprême loolu danañ ko def bu gaaw a gaaw mm-hmm. bi ci tegu mooy danañ woote conférence de presse talaata pour wax sénégalais yi li ñu nar a def parce que dañu am programme boo xam plateforme bi yëpp mm-hmm. ñoo ci d'accord pour dérouler ko loolu il faut que sénégalais xam ni yëf yi du xeex buy jeex tant que état bi réglé wu ko parce que koppar yi ñuy foqati ci nit ñi dafa ëpp. d'accord te wéetuñu da ngeen uh-huh. gis ne état bi kon fi mu ne dafay daw ay responsabilités mais bien sûr parce que état bi déjà dimbale na leen jox leen trois milliards. trois milliards état bi jox na leen ko boo xam ne jo bokkeewul ak euh, lam leen joxoon li leen di jox at mu ne ci ndimbal. Uh-huh. waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ay entreprise privée lañu entreprise privée dafay liggéey pour am bénéfice ñoom dañuy liggéey pour am bénéfice ku ñu jàngal nga fay leen ñu fay ci seeni salaire fay ci seeni charge waaw mais bu ñu jàngalewul c'est normal que ñu am xaalis mais pendant ay at pendant ay weer ñu ngi jàngale di fayeeku di def ay bénéfice waa ñetti weer yi xam ne euh, école état bi moo tëj école yi état bi jàppale leen trois milliards ñu séddale leen ko ñoom seen biir ñun ci cérémonie ba la ñu woowoon deux mille quatre cent dix huit écoles privées yoo xam ne ñu mat rek ñoo ci am agrément am na ñu bare ay dañu def déclaration rek. Mhm. ñu jox leen récépissé de déclaration mais amaguñu autorisation am ci ñu bare ñoo xam ne ñu nag ay clandestin la ñu. dañu ñëw rek lu benn kër boo xam ne saal ya baaxul xëy na amul ndox bu doy amul courant bu doy ñu di dankale élèves yi di leen fayeeku examen jotee ñu le élèves yi ci beneen école boo xam ne bi am na am na autorisation jubadi googu yëpp état bi moo ko war a xeex te xeexu ko en tout cas bu koy xeex it feeñagul mais li ñu bëgg daal mu régler ko ci lu gaaw mooy affaire payoor bii parce que am na parents d'élèves yoo xam ni bi ñu ñëwee di di di réinscrire seeni doom liñ leen laaj mënuñu ko fay dañu taxaw di jooy ci seen kanami doom loolu lan moo ko gën a ñaaw te jubadi rek moo ci yeneen jubadi yoo xam ne dañ naan parents d'élèves yi yow léegi dès le départ da ngay fay trimestre waaw ban parent d'élève moo mën a fay réinscription hmm. fay euh, euh, euh, fourniture doomam fay ay yére yoo xam ni foog mu jëndal ko doomam ba pare ñu lay fayeeku ñetti weer d'avance ba pare signé loola engagement boo xam da nga ni engagé wu naa fay at mi yëpp c'est-à-dire bu ëllëgee bu bu état bi tëjoon école yi pour ñaari weer wala ñetti weer aussi yow dañ lay dañu lay génnal sa engagement ni la yow kat yaa signé woon ni di nga fay at mi yépp loolu danañ ko xeex après parce que loolu la ñuy wax clause abusive danañ ko xeex après bu jaree ñu xeex ko ci kanamu tribunaux yi danañ ko ci xeex mais loolu mooy wane jubadi yi nga xam ne ñiy wut xaalis dong moo leen intéressé charge yi ñuy wax ne dañuy dañuy fay charge mais charge yi pendant les trois mois yi ñu tëj école yi ñoom am nañu ay enseignants yoo xam ni ay vacataires lañu ñii ay permanents permanents yi la leen état bi wax te ñooñu barewuñu permanents yi la leen état bi wax da ngeen leen di fay soixante dix pour cent salaire soixante-dix pour cent am na ci ñoom ñoo xam fay ñu ko mais ñi ci ëpp enseignants yi ay vacataires lañu c'est-à-dire bu ñu jàngalewul duñu leen fay donc ñu leen fay ñu leen prestation ñu leen li ci tegu mooy courant ak ndox ak euh, entretien loolu bu ñu tëjee école yi loolu presque nul la presque amul donc charge yi ñuy wax ñu foog ñu fay ko évidemment foog ñu fay ko mais bu ñu fàtte ni ci at mi yëpp dañuy liggéey di def ay bénéfices mm. donc trois mois yi ñu tëj xam ni charge yi euh, eggool fi ñu ko bëgg a eggalee parce que amu ci kenn kuy génne état financier di wane ni man lii la perte amul bu ñu leen ko laajoon pour jox leen bu ko defoon condition pour jox leen euh, subvention yi ñu leen jox trois milliards yi mais bu boobaa ñi ci ñi ciy jot ci subvention ñu néew la ñu doon d'accord ñu néew ñu néew la ñuy doon parce que duñu nangoo wax mukk seen charge ni mu toll donc loolu yëpp buñ ko seetee en tout cas li ñu leen di tere mooy nanguwuñu kenn nanguwul ah, ñuy fayeeku loo xam ne amee luñ leen ko loolu dong la te état bi moo ko war a rek leer na maître ñu wax ci leneen di actualité itam mbirum centre de redressement yi jur coow ci réew mi yoon nekk ci ba tey ban jàngat nga ci def en tant qu'avocat waaw njàngat bi ma ci def mooy euh, Euh, centre de redressement loolu état moo ko war a def état moo ko war a créer mi ngi mel ni ay prison que mu de prison wala mu nekk centre de redressement euh, lu mu ci munti doon état moo ko moo ko war a moo yelloo pour organiser ko légalement état moo mën a def loolu état dong moo ko mën a organiser def ci moyen yi ci war pour muy fonctionner mais budul dul loolu xëy na ci état yu mag yi mën nañu jël mission boobu dénk ko ay privé yoo xam ne dañ leen jox moyens yu war moyens yu mat yoo xam ni danañ ko mën a def mais loolu en tout cas ci suñu réew yu mel ni Sénégal loolu amagu fi privé yu mel noonu amu fi moyen yu mel noonu amu fi te bu loolu bu waree am état moo ko war a def maintenant dégg na ñuy wax ay daara tarbiya bon bu fekkee loolu la état bi dina ko set en tout cas bala ñu ci mën a wax joxe ci avis mooy bu enquête bi pare enquête bi dafa nekk en cours paregul donc en tant que avocat en tant que citoyen boo xam ne sax dafa respecter li ñuy wax présomption d'innocence mënaguma joxe avi ci lu mel ni tant que enquête bi parewul mm-hmm. ba ñu conclusion enquêteurs yi d'accord ñu ñëw ci ñaareelu euh, vague contamination Covid 19 ñu ngi koy ragal ndax am na ci yeneen réew yu bari Europe notamment euh, fii ci Sénégal euh, kilifa yi itam di ci am xel ñaar ba tax ñu bari di wax ne dañuy indiwaat mesures yi nga xam ne moom la ñu jëloon jëruñu ndenk wàllu wér gu yaram ne couvre-feu sax beneen dàq ñu ko ndax yow ànd nga ci ñu delloo siwaat fi mu ne nii mesures yooyu balaa xëy na yëf yi di gën a law ndax gis nañu kaay itam ni mu tàmbalee yokk bu baax a baax. waaw autorités yi ñu ngi analyser situation bi actuellement pour xool yan mesure la ñu war a jël donc euh, mën nañ ni yàlla muccal nañu booba ba léegi ci jëye ju rëy ji xam ne am na sénégale yu bare dañu defe ne amatu fi wala néew na fi te fekk mi ngi fi euh, defe naa fan yi passé rek li ci xew ak ba tey wone na ni Euh, feebar bi mi ngi aggravé donc sénégalais yi dañu war a bàyyi li ñu nekk ñoom dañu defe ni rek euh, problème bi ñeneen ñi rek lay dal mais ñoom du leen dal defe nañ ni rek bu ñu ñaanee rek yëf yi dañ mais du ñu nangoo jël ay mesures kenn respecté tul ay mesures takk masque distanciation ay gel ak yooyu gel yi sax faaletuñ ko donc sénégalais yi indiscipline boobu inconscience boobu euh, affaire u maate yooyu ñu il faut mu deñ te li koy mën a dindi du rek wax du rek ay texte ay sanction la il faut que état bi mën a teg place bu tegee ay mesures ku ko jalgati ñu teg fa sanction yu diis sanction yi nag du ay dóor nit wala tëj nit kaso mais sanction financière lay doon xaalis lay doon boo xam ne bi duñ la nii boo defee infraction bi da ngay fay six mille francs nit ñi faalewu ñu yooyu mais buñ la nee boo defee lii di nga fay vingt cinq mille ba cinquante mille ku ñu ne lii boo ko defee bu ñu la jàppee cinquante mille ngay fay mu wóor la ni balañ la bàyyi nga fay ko wala say say say mbokk dajale fay cinquante mille ñu bàyyi la bu la dalee benn yoon dootu la dal te ku ko gis mu dal ko dootu ko dal hmm. donc loolu la ñuy wax état bi mu def ko gis nañ France sanction yi ay cent cinquante euro ay lu ko ëpp parce que il faut mu metti ci poosu nit ñi pour ñu bàyyi liñ nekk Ah, loolu la ñuy waxtaan ci. d' accord jërëjëf maître Massokhna Kane ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. maa leen gën a kontaan parce que vraiment ngeen ñu occasion pour ñu communiquer ak askan wi.